asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki <clears throat> taalibe yi ginnaaw bu nu sante sunu borom subhanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddaliwaat sunu yaakaar cheikhuna Ahmadul Xadim ñoo ngi ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla na ko fi sunu borom yàggal lool te doole ak wéram di am mbégte sant yàlla bu baax ci jataay bii nga xam ne jataayu fàttali ko waaye jataayu sant yàlla. muy bis boo xamante ne bii sëriñ Sidi moom sëriñ Naar jenn ak mbooleem rakkam yëpp baaxoo nañ di ko amal at mu jot fukki fan ak juróom ci weeru kor wi dëppoo ak juróom benn fan ci weeru tubaab di gaaw bi nga xam ne moom la ñu dëgmal incha allahu rabbi muy bis boo xam ne nag ginnaaw bu ñu jotee ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér waaye jaar ci sëriñ Abdoulatif jenn mi nga xam ne tey ji mooy jëwriñu kër sëriñ Issa jenn wàcc ci sëriñ Sohaybu jenn mi jëwriñu kër sëriñ Baara la ñëw nag ci sëriñ Sidi Naar moom sëriñ Naar jenn ak mbooleem rakkam yi mu bokk bokkal toog yëpp bis nga xamante ne bi ci la ñuy fàttaliku jàmbaari lislaam ja xam ne liggéeyal na Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci ak njabootam waaye liggéeyal na Serigne Touba Xaadimu Rasuul ci ëttub maam Issa Dieng te Cheikh Abdoul Ahad na woon a weeru kor yi ak juróom benn fan ci weeru tubaab di amee fii ci këram gii mu doon jaamoo yàlla nag daan ko fi liggéeyal dañuy xëyee jàng alquran ak xasida Serigne Sidi nee képp koo xamante ne bii Serigne Naar mooy sa buntu ci Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak kër goo ci mën a aju moo xam mu la moo la ñu am ci la ñuy ñaanal sëriñ xasida ak tudd turu yàlla wi ak def ay salaatu ala nabi ak bernde bu ñu demee ba julli tàkkusaan dana ànd ak rakkam yëpp génn ci penc mi waxtaanalaat ak taalibe ñaax leen waaye soññiwaat leen ngir ñu mën a takkaat seeni laxasaay jëm ci liggéeyam sëriñ Tuubaa bis baa noonu sëriñ bi nee mi ngi ñaan képp koo xamante ne def nga ci dara wala nga teew ci bis bi wala sax nga amoon yéen ju rafet jëmee ko ci bis bi yàlla mi mën a faj aajo yàlla na faj sa aajo ci darajey maam Issa Dieng waaye darajey Serigne Baara waaye darajey Serigne Naar ma nga xamante ni moo ko doon liggéeyal tan di ko ci fàttaliku wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.